Euh, la commune parce que yeneen communes yi ni ñuy góorgóorloo ba flambé bi jotu ci am parce que quand même euh, lolu problème la sensibilisation bi commune bi waran porter envers les populations lolu lolu def ñu ko raison yooyu sax ci walu Covid bi tax na ba tey parcelle euh, nit ñi ñoo waxtaan yeneen force politique yi ñu nek ci majorité ñu nek ci pouvoir bi ñu nek opposition ñu ne nañu ànd ba mu des maire bi parce que dañoo gis ni nous, euh, ngi waxtaan ak ñun ñu nekkoon euh, ñu jàpp ni nekk bu sincère ànd bu loyal ñun ñi nekk majorité bi ñu président à l'Assemblée nationale si ñu contre le ministre de révocation en tant que maire de assemblée nationale euh, Pape Diop ak pouvoir yi ko délégué pouvoir de signature

parce que loolu leneen luñu wara laté a la légui nak ñun ñi nga xamni euh, dañu andon ak président Macky Sall ba fi mu toll ni amuñu confiance ci loolu et fii ñu nekk ni dañuy def appel à toutes les forces vives des Parcelles Assainies majorité bi pouvoir euh, opposition bi société civile bi ñëpp ñu teel leen querelle parce que ci loolu lañ nekk ñoo ngi waxtaan ñun ñëpp ñoo ngi waxtaan pour quand même li fa nekk ñu jëlee ko et nous demandons quand même au président Macky Sall que dans cette affaire là

Macky Sall bi ma xam Moussa Sy ak fi mu jaar ak moom ci assemblée ba mu ko fay dàq ñu reba ko mbay Ndiaye ndax ko ay complot dàq si seloo ndax ay complot kooku bokkoon ci loolu ci kañ ki nga xam ne moom la waa PDS doon ngem naan ko attaqué diw je pense que fi ñu toll nii Macky Sall war na xam ni warul am confiance kooku man li ma jàpp mooy fi mu toll nii nekkuñu si crise politique crise sanitaire lañ nekk si li ñu war a nekk mooy doole ji nga xam ni ak lépp loo xam ne Sénégal war na ko def dañ ko war a jël teg ko pour régler problème crise sanitaire bii ñu nekk nii mais wal politique quand même Sénégal nek ñu ci crise politique ba ñuy wax gouvernement d'union nationale lolu quand même yenn politiciens yi ñoo am euh, intérêt pour lolu am mais je pense que réew mi fi mu toll nii leneen la soxla leneen la laaj parce que crise bi ñu tollu ni muy crise sanitaire dafa nekk crise mondiale épidémie bu doy war la nañ régler lolu ba paré ñi wax waxu crise euh, waxu waxu gouvernement d'union nationale